mais aussi njariñ li nga xam ne am na ko ci jigéen ñi ndax bu njëkk yu mel ni bu daan am góor ñi rek la ñuy jël muy liggéey mais fii lu ëpp euh, fukki junni ak juróomi nit jël nañ leen ñuy liggéey ci biir projet bi. du ñu defar ay piste rek tracé dem waaye population yi nga xam ne ñoo euh, moom la ñuy traversé village yi nga xam ne moom la piste bi di traversé dañu fay def ay activités yu nga xam ne day jëm ci wàllu mbay. jëm ci wàllu sàmm jëm ci wàllu euh, activité yu nga xam ne dafay may nit ñi ñu yokk seen koom-koom mais ci biir euh, dëkk yooyu nga xam ne projet bi am na fa jaar na fa gis nañ aussi njëriñ li mu indil wàllu njàng mi njëriñ li mu indil wàllu wér-gu-yaram gi mais aussi njëriñ li nga xam ne am na ko ci jigéen ñi ndax bu njëkk yu mel ni bu daan am góor ñi rek la ñuy jël muy liggéey mais fii lu ëpp euh, fukki junni ak juróomi nit jël nañ leen ñuy liggéey ci biir projet bi.